bu la yàlla dimbalee nga am njaboot gu jub xamal ni suñ boroom defal na la lépp ndax yorum njaboot ba noppi ñu jël yoon wu safaanu wuuteew saw yoon saa yoo tëddee cib lal li ngay njëkk xalaat mooy dañ la yee ndax lu mu def wala lu mu defut kon saa borom subhaanahu wu taala bu la dimbalee nga yor njaboot gu jub loolu kilifa yépp moom la ñuy ñaan ba ci yonante yi sax daan nañ ñaan loolu suñ borom may leen njaboot gu jub kon Cheikh Bass daa mel pare nañ sëñ bu Buso boo leen noppee ñu xam ni nag dëgg dëgg nag dëgg dëgg nag sunu commerçant yi ay jàmbaar lañ ndax maanaam question yi ñu doon laaj ñi ko doon laaj dañu doon am jafe-jafe ngir génnee question yi di am jafe-jafe ngir génnee question yi fan la nekk ci biir alxuraanu karim ndax question yëpp yi ci gën a bari boog yi ci ëpp ay runge la am na ci yoo xamante ni benn baat benn yoon rek lay ñëw ci alxuraanul karim am na ci yoo xamante ni aaya bi mën naa ñëw ci alxuraanul karim juróomi yoon wala ñaari yoon wala ñetti yoon seetal rek ñu ñëw tàmbali ci benn wax la aaya ba ca kaw ni la continuer loolu lu jafe la waxoon naa ko fi sànq alxuraan ki ko ki ko mokkal dong moo koy runge ndax boo jàngee ba yam yaasin la ne ca kaw bu nduróowee ak alxuraan tamit yow sa yoon newu ca mënoo koo runge ndax xamoo ko waaye ki jàng alxuraan lépp ba mu jeex ba mokkal ko kooku rek moo mën a runge kon ñii ay jàmbaar lañ ay jàmbaar lañ yàlla na suñu borom def boo leen jógee fii ngeen yokk ba yëkku ngir alxuraanu karim te yéen it yéen ñi dëkk ci régions yi ñii represente leen alhamdulilah ngeen war a wax ndax mënoon na leen représenté ci leneen ñu naan doomu Bawol ba wala doomu nàngam ba boobaa loo man kon allahu akbar allahu akbar ñi ngi leen di sant di leen sargal yàlla na suñ boroom fay leen nañ yokk ba yëg ko bu ñu delloo ca marché ya ba ñu xam ni alxuraanul karim teral na leen yen ñi dëkk ci régions yi fonkaat leen ñooñu alxuraanul karim ku ci am tut tànk fexeel mu dem ci daara yi jàngi ku ci am tut tànk bu mokkal alxuraan fexeel alxuraan ja roode ca moom mu mokkal ko waaye sa doom génn daara rek nga yóbbu génnee boo moytuwut alxuraan yi ngeen mu fëttu ko mën naa yomb loolu ngeen bàyyi ko xel dafa bokk ci objectifu Cheikh Bachir mii mooy ndongo daara yi fexe bay tii seen alxuraanul karim ndax alxuraanu karim alxuraan daa fiir boo ko bàyyee rek day taxaw ne di la xaar ba keroog ngay ñëwaat boo ñëwaatee sax mën naa lànk kon ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax Cheikh Bachir moom yitte ji lool rek la mooy nafar baat bi baat bi moom leer na daañ mooy nafar rek sëñ Mbàkke bu soo boo noppee bismillah bismillah kon ñu déglu jury bi ma bàyyi la ne xel nag ñii ay tànneef lañ ñii it ñu ñu tànn lañ ci daara yi ñu man alxuraanu karim koo fi taxawloo woon fii di ko cuqi day dem ndax seenu man alxuraanu karim suñu bàkk bu sa bismillah salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñoo ngi tàmbalee fa ñu tàmbalee woon rek mooy di jéggalu yàlla sunu borom bi tabaraka wa taala di jéggalu tamit mbooloo mi fi teew di jéggalu di jéggalu kàndidaa yépp ngir njuumte mën na cee am ndax fii may waxee nii di joxe résultat yi am naa ci tiitaange lool ndax xam matadik doomu aadama waaye nag day liggéey boo xam ni fokk rekk ak teqalee am ci biir loolu lañnatu taxkim bi muy groupe bi nga xam ni ñoo féetewoo wéral gi saytu wérug alxuraan ji ci critères yi ñu waxoon muy wattu gi ak leer gi ak wattandiku mucc ci yàq ak dem di dellu si ak runge muy yooyu noonu critères yooyu biñ ko saytoo am na lu ñu sunu natt jox yàlla nañ ci yàlla jéggal wallahu taala alam ci biir ñooñu xam ngeen dawru saani bi dañoo jëloon juróomi nit ngir saytuwaat leen ci biir juróom ñooñu ngir dañoo bëgg a génne ñeenti nit ñoo xam ni ñoo at mi ñoo gañe concours bii di concours nafar alquran te Cheikh Basir Gueye jiite ko ñeenteel bi bi nga xamante si moo jël ñeenteelu toogu bi ñeenteelu toog bi nga xam ni ñoom mbir mi seere na lool mën naa ni sax daanaka ñoom ñoom ñëpp ñoo tolloo ci boo xoolee liñ rawante ci point li leen teqalee nag bi ñu xoolee xifs bi ñoo ci tolloo mucc gi ci yàq noonu waaye wuduux bi muy leer gi foofu lañ mujj xool la leen teqalee foofu daal lañ leen mujj teqalee waaye gis ngeen ñi doon tari fi ñu jafee teqalee la ci bu fekkee ay gag ngay xool wala leneen ñeenteel bi nag nekk sëriñ Abu Jaxate sëriñ Abu Jaxate bismillah takbir allahu akbar région de Thiès allahu akbar sëriñ aboo Jaxate moo jël quatrième moom moom ci kattanu suñu borom dina am trois cent mille francs insha allahu ak yeneen i kado yoo xamante ni ay ñu bëgg alxuraan indi nañ ko fi sëñ Abo Jaxate candidat yépp sëñ Mouhamadou Tine utal na leen kado moom mi ñu tuddee bis bi kado gu gu gu alxuraane sax nag gu gu gu duun ngir décorer ko ñoom ñi nga xam tamit ñooy candidat yi incha allah mooy ñi nga xam ni ñoo jël prime yi aywa sëñ Moussa sëñ Bakk Bousso. bu ko defee lim am ci point. lim am ci point sëñ Abo Jaxate 99 ñu ngi toll ci 99 virgule 3. 99 virgule 3 la am macha allah. ba bu dee 100 la nga am 99 virgule 3. alhamdulilah. ba tey ci liggéey bu jafe bi rek ñuy ñëw di leen annoncé ki jël ñetteelu toogu bi. Mhm. muy sëriñ Abdoul Ahad Diaw Diourbel. Serigne Abdoul Ahad Diaw Diourbel moo jël ñetteelu palaas bi. Serigne Abdoul Ahad Diaw Diourbel. Serigne Abdoul Ahad Diaw Diourbel moo jël ñetteelu place bi dina am bu soobee yàlla cinq cent ak yeneen i cadeau yoo xamante ni ay nit alxuraan ñoo ko fi indi Cheikh Fallou Gueye Badar mu jigee si sëñ Mouhamad Tine na jigee si sëriñ Basiru Mbàkke Xaadim Awa Ba na jigee si bismillah sëñ Mbàkke Bousso waaw kon ñu jàll ci ki nga euh, sëñ Abdoul Ahad Diaw Diourbel mi mi ngi am 99 virgule 4 99 virgule 4 la sëñ Abdoul Ahad Diourbel am bu ko defee ki jël ñaareelu toogu bi. ki jël ñaareelu place. mooy Serigne Kéemaan Gay Tamba. Serigne Kéemaan Gay Tambacounda macha allah Serigne Kéemaan Gay Tambacounda macha allah moo jël ñaareelu place bi Cheikh Basir kooku lu muy am Cheikh Bas. Serigne Kéemaan ci kattanu sunu borom dina am million lay yóbbaale bu soobee yàlla Tambacounda ñaata la am sëñ Mbàkke so waaw mi ngi am lu toll ci quatre-vingt-dix-neuf sëñ Kéemaan bisimilah sëñ Kéemaan bisimilah mi ngi am ñaata. vingt dix neuf virgule neuf. quatre vingt ah kon de xanaa première bi moom. 99 virgule 9 sëñ Kéemaan moo jël deuxième position incha allahu dina am 1 million ayoo première bi. waaw xam nga ni nag sëñ sëñ Kéemaan gay mii. sëñ Kéemaan waaw. lu lu mat a eh, teew la ndax biñ koy càmbar. waaw xawoon naa jafe lool waaye nag eh, wut wax bi dafa bokk ci critères yi critères yi ñuy tànne maanaam wuduxul qiraa bi njàng mu leer mi daf ci bokk. leer la na ko macha allah ndax 99 virgule 9 ku ko am. boo gisee sëñ Kéemaan ñu ne am na 99 virgule 99 mooy njàng mi muy njàng daa leer. ba képp ku ko dégg mën a xam maxaar ji xuruuf yi buñ la ko bindloo nga bind ko buñ la ko loo nga firi ko looloo tax mu jël deuxième place bi 1 million lay am incha allahu. ñoom première bi ñoom ñëpp nag. daanaka wudux bi ci lañ teqali ko ñoom ñëpp nag wudux bi rekk leen teqale waaye du ñàkk mokkal alquraanu karim na leer ñii ñëpp. mooy leeraayu njàng mi rek. leeraayu njàng mi rek. Hmm. dañoo sonnoon ngir teq leen waaye leeraayu njàng mi rek la ñu attee waaye du ñàkk a mokkal alxuraan ñëpp a mokkal alxuraanu karim kon première bi kan la war a nekk. kon xam naa ñi ngi annoncé première bi te xam ni ñu may ñu tuuti. waaw may leen jury yi. ñu may ñu tuuti. Mhm. ndax sëriñ bi moom lépp lu ñuy joxe bu sañoon Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam koy jël. macha allah tombe na ci nag kon. dañ daa wax ne inna allaha yuhibbul fa'l al xasan gaan nga gu baax ubbi na ko ci moom lañ wàcc alquran seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam candidat bi nga xam ni première concours bi première édition bi ki ko jël tudd muhammad macha allah muy sëriñ muhammad fall ah Dakar waa <laughs> allah macha allah candidat Ndakaaru Njaay bi moo jël concours national nafar ñu may ñu tuuti prix Serigne Mouhamad Tine ñu may ñu tuuti le vainqueur ñu may ñu mooy Mouhamad Fall allahu allahu akbar allahu akbar moom commerçant la mu nekk Seras ku xam Seras xam ni ak mbandi ak wëyu moo fa gën a fës kon bu fa alxuraan génnee loolu raar na de kii mooy sëñ Mouhamad moo jël concours national bi nga xam ne moom lañ dara jaalee sëriñ Mouhamad Tine kon incha allahu moom bu delloo dina dellu ak 2 millions ak ay neexal yoo xamante ni doo xam sax xayma gi ñoo ñëpp nitu alxuraanu karim ñoo ko fi indi kon sëñ Mouhamad bisimilah. Assane sëñ Mbàkke Bousso bisimilah. waa gars yi may leen ñu rek ñu wàcc tribune bi boo leen noppee ñu àggali rek. ñu woo sëñ Mouhamad Tine mu jege si Cheikh Fallou Gueye Badar na jege si Serigne Bassirou Mbacké Khadim Awa Ba mu jege si ñu décorer ñi nga xam ni mooy suñuy candidat ci kàttanu yàlla Cheikh Bassirou Gueye moom it faw mu décorer Cheikh bas kon ñeent ñi war a décorer candidat yi Cheikh Bassirou Gueye Badar mii la sëñ Basiiru Xaadim Awa Ba ak Seex Fàllu Géey Badar ak sëriñ Mouhamad Tine mi nga xam ni moom lañ dara jaale bisub alxuraanu karim bi kon Seex Fàllu bismillah numéro 3 numéro 3 Abdoul Ahad Diaw Diourbel bismillah moom moo gagné 500 000 francs bismillah bismillah lii rek mooy yitte ji alxuraanu karim moo leen seral de alxuraanu karim moo leen sargal bismillah ñëwal ni Cheikh Bachir Gueye yàlla suñ borom fay la Sëriñ Abdul Ahad Diaw bismillah jërëjëf macha allah aywa jëlal ki ci topp kuy ñëwaat sëñ Koso kuy ñëw quatrième bi bi deuxième bi sëñ Kéemaan bismillah sëriñ Basiiru Mbàkke xaarim awa ba bismillah moom it jàpp na ci bis bi lool taxawaayam rafet na lool yàlla na ko saa boroom fay ngir alxuraanul karim quatrième bi na ñëw quatrième bi na ñëw ñu décorer ko en attendant sëñ bi pare quatrième bi na ñëw ñu décorer ko décorer quatrième bi Bachir Gueye ñëwal Cheikh Bachir Al Badri sëñ Bachir Gueye Al Badri mooy décorer quatrième bi quatrième place bi moom mi ngi war a am Cheikh Bass bismillah mi ngi war a am trois cent mille sëñ aboo jaxate bismillah lii mooy teraangay alxuraanul karim yàlla na suñ borom barkeel deuxième bi sëñ kéemaan deuxième bi sëñ kéemaan bismillah macha allah waaw sëñ bas bismillah sëñ bas Cheikh Bachir mag wax dëgg yàlla Euh, ci bëggul alxuraanam ba mu yëgee ni ñi ngi fay saal bi ngir mu seer rek ca saasa rek dani Seex Bas loolu moom bu ko tuddati dinaa fay saal bi moom moo fay saal bi kon ngir alxuraanu karim dane woon kenn du ko tudd sax waaye lu baax moom lu baax la macha allah macha kon deuxième bi mooy sëñ Kéemaan Gay dëkk Tambacounda moo gagné deuxième bi muy un million franc CFA macha allah allahu akbar allahu akbar trophée yi juróomi trophée la ñu am cadre yi la ñu décoré kenn ki décoré nañ ko deux million mooy première bi deuxième bi mooy kii ngay décoré muy un million franc fa première bi suñu xaadim nee na suñ basiiru mbàkke suñ basiiru mbàkke xaadim awa ba ku xamul tegal na ko trois cent mille francs kon euh, première bi day yóbbu deux millions trois cent deuxième bi deuxième bi day yóbbu un million deux cent mille troisième bi deux cent mille insha allahu moom it kon day am booba cinq cent mille francs CFA quatrième bi quatrième bi tegal nañ ko deux cent mille mu am cinq cent sëñ bi boo amee looy sànni man asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu dama naroon na tàmbali wax waaye man bada a bisalaam man bada a bil kalaami xabla salaami falaatu tujibuhu moo tax ma leen asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi leen di nuyu di rafetlu lii ndax ñun képp kenn ci ñun ku ne sunu devoir ku bokk ci Serigne tubaa mooy bëgg alxuraan fonk alxuraan di dundal alxuraan wax naa ko Bachir ana Bachir Bachir Bachir kay Mamadou Bachir jërëjëf ñun ay dongo daara lañ considéré suñu bopp amuñu cër amuñu cër bu gën a rëy doon dongo daara kon boo ñu delloowaatee ci nafar alxuraan dimbali nga ñëw alxuraan nag ñépp dañ ko war a gën a fonkaat gën ko téye wax naa keroog ni ñi nga xam ni dañuy wër naan dama bëgg turu yàlla ñu leen di nax ñuy joxe seen xaalis am na lu gën a gaaw loolu àgg ci yàlla du ngeen ma laaj mooy lan Sëriñ na man araada al qurba min mawlaahu fal yaqra il qur'aana la yansaahu ku bëgg a jige yàlla ku bëgg jige yàlla da ngay jàng alxuraan da nga koy saxoo te sëriñ bi yemul ci loolu nee na bis bi indiwaat na ko nee na boo bëggee jige yàlla dangay ngay jàng alxuraan da nga jige yàlla te dana tax doo ko fëtt kon basiiru bis bii nga ñu andil képp koo xam ni donga daara nga wala ngay taalibe sëriñ Tuubaa wala ngay ab jullit sa devoir ci alxuraan mooy di ko nafar yàlla daf ñoo jox alxuraan ñu war ko fonk nit dafa faatu dekki ni sunu borom li ma xasarte ni ama waxadu kuntu basira lu tax bi ma bi ma faatu bi ma dekkee ñu pang ma ma gumba te ba may faatu dama nekkoon njàccaar doon gis sunu borom ni ko xam nga lu la teg loolu dama laa joxoon alxuraan nga fàtte ko kazalika atat ka ayat mooy ay jërëjëf mu ni ko dama laa jox alxuraan nga mokkal ko sàggan ba fëtt ko moo tax bi nga dekkee nga gumba fii dama lay fàtte teg la fële ooma ci yow soxla kon mbokk yi ñun ñi mokkal alxuraan nañ ci góorgóorlu di ko jàng ndax alquran mooy lépp yàlla dafa wax ci alquran ni suma awrasna alkitaaba allazina stafayna min ibadina fa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum saabiqun bilxayraati bi idnillahi zalika wal fadlu kabiru loolu aaya jooju ñi mokkal alquran ñoo ko moom kon Bachir jërëjëf bég nañ ci yow yal na la yàlla sàmm yal na la yàlla jàppale yal na la yàlla taxaw nii nga fexe ba génne sa bopp ñu dàkkantale la alxuraan am nga dàkkantal wu am solo ndax dàkkantal wi nit ki am fii bu ñëpp dekkee dàkkantal woowu lañ koy woowee teew sa dàkkantal mooy bëgg alxuraan macha allah gën a la ci loolu dana metti dana tàng dana naaj parfois da nga da ci wéet waaye sax ci rek foofu la sax ci rek foofu la kon maa ngi leen di sant di leen gërëm après dinaa jox Basiru ñeent ñooñu première bi trois cent deuxième beeg troisième beeg quatrième bi ku ci ne deux danaa ko jox Basir léegi bis bii nag jàppal ni da nga koo tàmbali waaye at mu jot dinaa ko ànd ak yow ba mu jeex tàkk ma fekk fi sama imaam ma fekk fi sunu imaam ma fekk fi sunu imaam mu ngi nii toog ñu bokk ak moom guy mbind fa tabaarakallaahu muy ku yàlla baaxal kon imaam bisimilah. waaw dama li tax ma ñëw dama xam ne sëriñ bi moom yóbbu màkk ngir alxuraan loolu dama ko ñëpp xam ko daaw jéeg moom yóbbu màkk ngir alxuraan kon nag bu fi teewee te séeréewuma ko du ma gor kon na ñëpp xam ne li muy wax nii di ko jëf tey ci la dëkk kon sëñ bi yàlla na gudd fan te wér loolu rek laa ne na ak séeré ko jërëjëf Mbacke jërëjëf kon jërëjëf ah mënumaa wax ci mbooloo asalaamaaleykum asalaamaaleykum lii da duluy asaar da dul asaar kii waajuram kii waajuram ak sa waajur sëñ xaadim awa ba ba mu génn ba ànd ak soxna Sooda Bàkke saatu caatu maam Seex Anta borom gaawaan mu duppee ko kee bis booba la sëñ Xaadim ñëw ca kër ga ñu ganale ko mu ganale ko bay muy dem ba bu gungee ba génn ba ca buntu kër ba mooy xéewalu Tuubaa ga ngelaw la woon ca ngewal ngelaw la daane win miiru kër sañ soy bu keru bis booba sëñ Xaadim ba aw ba ci kër ga la yenn sa waa waajuram di ko ganale kon lii jërëjëf jërëjëf sëñ bi san am nañ mbégte loolu ci taxawaay bi jërëjëf sang bi kon ñu woo waaw sëñ bi kon day def avant première rek mooy baas bi ngeen di gis ci mbedd mi ci biti incha allah bu soobee yàlla kon ñu woo ki nga xam ni ci kàttanu yàlla ak mbaaxu sunu borom subhanahu wa taala yàlla moom la dogal mu jël raw gàddu gi di concours national alquranu karim nafar nekk seeraas di commerçant kon sëñ Mouhamad bisimilah sëñ Mouhamad Tine mi ñu dara jaare bis bi moo koy décoré kon bisimilah moom mi ngi am 2 millions ak li ko ci sëñ Xaalim Awa Ba Mbàkke Awa voilà kon bismillah sëñ Mouhamad bismillah Mouhamad Fall commerçant ca Seras moo jël concours national alquranu karim nafar prix sëriñ Mouhamad Tine kon jërëjëf sëñ sëñ a ah alquran de Seydina Muhammad lañ ko joxoon bu ko ab Mouhamad yóbboo gàcce ngaalaama la ñuy wax kon jërë ngeen jëf sant nañ ñëpp yéen ñëpp ci seen taxawaay lépp rafet na macha allahu rabbi macha allah lépp rafet na yàlla suñ borom fay leen ngir alquranul karim yàlla suñ borom fay leen ngir alquranul karim képp koo xamante ni def nga sa ñaq ak sa effort ngir alquranul karim yàlla na suñ borom fay la ci barkeb alquranul karim lépp rafet na macha allah.